kattan dama ne say rangoñ fer na ak Cheikh Omar Dramé indi leen remède naturel sans effet secondaire mboolem buur kattan yi bii mooy seen chef waay waay bii mooy daj dëpp gi waay li ci gën a neex ñu indi leen kattan numéro ak kattan numéro deux wax bi du bari lii daal mooy ñam xam dama ne képp ku ci soxla gaawal woote gaaw ci numéro bii di ak Cheikh Omar Dramé dund ci jàmm ak bànneex. delloo nañ gis nañ ne démb combat bi amoon euh, seetlu nañ ne violence bi bëri trop noo ni ma ko jàngatee Papa Sow fi mu nekk la euh, supporters yi Cité yi gën a bëree foofu noonu dañoo juum waru ñu loon ko jox côté boobu noonu. li peut-être tamit histoire am na moomit it wartoon na dem si histoire bi mënoon naa toog calmer boppam gars yi arrangé problème bi mu jeex mais wartoon na dem te ba muy dem tamit vidéo bi maa ngi ko yor beggu naanaa la yor si loxo bi ba mu demee attaqué si loxo booy bi door ndënd bi si bopp te loolu moom. si benn moom fi mu nekk supporter yi Siteu kese moom fa nekk amul beneen supporter bu nekk parcelle nekk côté boobu noonu côté boobu noonu foofu noonu ñu organiser làmb bi benn dañ fa juum war ñu loon demee côté boobu yóbbu fa kii fu Siteu nekkee foofu la woon ne waroon a nekkee. mais dégg nañ sa biir wax nga ne dafa yoroon bégu naaw naaw mais loolu est-ce que bokkul ci xar fa xuufa yi rek c'est normal mu yore ko. non bégu naaw naa xeex la. mais d'habitude mbër yëpp moom la ñuy yore de buñ seetluwee. bégu naanaa xeex la sooy xeex nga koy yor armu la vidéo baa ngi nii sama téléphone mun naa la kaa génneel mais gars yi gars yi nee nañ que ni da ngeen xamoon ne boo leen bëree Papa Sow da leen di daan rek moo tax ngeen xaañ ko. ñun dañoo pare bu yàgg ñun dañoo pare bu yàgg si lépp. mais est-ce que jaadu na tey violence bi ñuy gis ci làmb bi tout le temps tout le temps sponsor yi dem nañ ba daw gisoo ne mbër yi war nañoo xoolaat seen bopp wala seen g bi wala yow jàngatoo loolu. mais avant mbër yi supporters yi la ñuy njëkk a wax ba pare avant tout ak ñi organiser lamb yi ndaxte lamb ju mel nii nii nga xool gis nga euh, si euh, tëggkatu Siteu bi fi mu njëkk a nekk fan la si biir géew bi ñu génnee ko fa yóbbuwaat ko fële tegal ko barrière comme keneen tamit amatul droit dem fekk barrière boobu noonu attaqué leen ak loo mun di yor di saraxe supporters yi ñoo gën a bëree noonu loolu la. boo amoon euh, kàddu yooyu dénk jeunes yi yu ñëw di seetaan si làmb ji ak en dehors bu ñu gisee ne làmb ji bu tasee agression yi day bëri gis nañ vidéo boo xam ne gars yi dañuy këf périgu jàmbur yi noo koy. loolu moom loolu moom d'accord ma ci ànduma ci liggéey ñàkk jëriñu la ñu wax ak ku mu doon nañu dem liggéey jaamu yàlla fii ku liggéeyu doo am bu dee sàcc mooy tax nga am billaahi wallaahi la ji doo am barki Cheikhul Khadim Siteu wax na ko ci biir booy bonuñu dee. mais dañu leen war a jàppale ndax ñu mën a dem si kanam ñun ñëpp supporters yi tamit maa ngi leen di ñaan pour beneen yoon muy képp ku parcelle Diamaguène Kër Massar tout non violence nañu woote jàmm suñuy biir làmb ji day jeex ñooy àndaat ñooy bokk dëj yi ñooy bokk mariage yi ku nekk xamoo ki nga nekkal sa mbokk la wala sa xarit la xamoo lii moo ñu boole bu jeexee rek jeex na. jërëjëf sëñ bi. ok merci beaucoup. maa maaleykum salaam soxna si naa def. sëñ bi nuyu nañ la. waaw maa leen di fay. tur Lamp. Euh, sëñ bi gis nañ ne démb combat bi jotoon am gis nañ ne bëri na violence trop trop trop trop la ci xalaat. ah bi moom ñun dañ bëgg a découragé wu en tant que jeune nga xam ne nii Sénégal ñun amuñu lu dul suñu sport bii nga xam ne moom mooy suñu sport business nga xam ne si la ñuy xale yi si la gis seen bopp. yaa ngi dégg mag ñi di si gis seen bopp takkusaan jot ñu sangu ba naaj dem toog. seetaan dagg suñu billet yu seer làmb mënut a jaar yoon pour pourquoi ndax ay xale yu ndaw ndax ay ñoo xam ne dañuy bëgg rek bëggee bëggeel moo leen di dugal ci saa su ne ñuy wane seen bopp ay affaire yu bizarre yoo xam ne waxuma la sax li si biir stade bi mais boo boo yow boo yoree sa moto wala nga sa oto di dem si diggante bi lu ne kay xew si làmb ji si ay boo yoo xam ne jëmuñu fenn li maanaam maanaam tekkuwuñ dërëm. si lamb yaa ngi dégg loolu moo war a jeex si làmb ji barki maam Seera Fall làmb dem ni mu demee ak ni mu feese ak ni tribune bi naase arène arène arène mel noonu ñëpp dagg seen billet kilifa yi teew ñëpp teew drapeau mamboy ma kii nu mu doon euh, ah. drapeau drapeau ki maam nu mu tuddati prendre nga xam ne ni làmb ji dafa waroon a neex jaar yoon ndax ki ñu ko tuddee dafa tegu si yoon yaa ngi dégg di doxal jeunesse bi bëggu ko si te ñëw indi lu neex bàkku cosaan indi lu neex Papa Sow ñëw ak yaram ak digniteem ànd ak waa parcelle ñu ñëw ay franc gars yi ñëw affaire yi neex trop ñu yegg si kaw tribune bi di supporter ay boy yu ndaw Papa Sow pour lan pourquoi moom moom moom léegi moom muy dem ci ay ndënd ay kiiwu jaamur di fa yor benn sagar naan fa lay jaar pour lan yow yaa ngi nekk responsable mag si te fuuf wane sa bopp entraîné nga liggéey nga bul def loolu di yàq làmb ji jaaral na la combat bi tas da nga soxla si te ci biir géew bi la neexee bu ñëwee ngeen wane ku ne wane boppam lim moom mais waroo jël en tant que responsable nga xam ne yaa ko si làmb yaa ngi dégg te booy bi yow xam ngeen ne dafa am ginnaaw am na nu muy doxala tuuti rek farandoom yi supporter am yi dañ koo bëgg moo leen am na ñoo xam ne si taa leen gënal seen yaay moo leen gënal seen baay da ngay dangay moytu def na la toog sa pukus di def ni ngay def def say échauffement yaa ngi dégg gérer ba arbitre woo nga ñëw bëre lu naaj dem sa yoon. mais dem moom li fa xew kenn rafetliwu ko en tant que amateur fa laay waxee man du ma supporter man Modou Lo mooy sama mbër amateuru làmb laa nag ñoom ñaar ñëpp kenn du sama mbër mais rafetliwu ma dem li fa xew wax dëgg yàlla. léegi boo amoon kàddu yooyu dénk waa CNG lan lay dagg dagg yi ñuy dagg mbëri te amuñu benn njëriñ ci affaire yi man dama comprendre yow yow nan nga mun a. nekkee eh, si biir même làmb nga jël ñëw yow ay gars yi bàqal ñoom ñoom bàyyi dem nga teg leen si si Siteu jël jël jiili teg ko si côté côté côté côté côté Papa Sow pourquoi yow kay kii mooy tëggal kii na na dem si côté mu yem côté léegi yéen ngeen jël seeni i seen i seen kii bariage teg nii kii fii lay yem du dem côté bee soxlawu ko ñoom ñaar fi ñuy gisante mooy si biir géew bi te buñ te normalement biir géew bi sax waruñu faa daje kii bu duggee dañoo war a xaarloo kii ba kay def ay soxlaam ñu dugg yaa ngi dégg fekk arbitre woowu leen ñoom ñaar si diggu géew bi luy xajamal lam war fa kii ndax arène bi dafa xat niñ ko liggéeyee dara baaxu si parce que maam Seera Fall seen seen nag dañoo war a wax ak ñoom ñu arrangé suñu làmb ji ñu ngi yàq làmb ji sponsor yëpp daw nañ ay cote la ñuy ñëw di sonal nit ñi ay yoo xam ne nii teguñu ko fenn lépp ñoom ñoo ko indi parce que Seera yu bëri daw nañ dem États-Unis dañoo yàq suñu sport bi teguñu ko fenn seen seen nañ xoolaat seen bopp xam ne lii du business du business boo xam ne dañoom dañ si ut xaalis si biir kaw mbëri di liggéey si kaw mbëri teguñu mbëri ñuy fen mais mbëri tamit ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp yeewu utiliser seen moyen bañ a topp ay affaire entraînement rek di kii am staff yu baax mbëri dem yi dem staff génn fa Papa Sow bu amoon staff bu baax du jël morceau bi du xuus si ay dañ waxante dëgg naan day dem si ay kiiwu jaamur bañ ko ba xeex di fa am yaa ngi dégg rafetlu wu ma ko dara nag billaay wallaay ndax moo njëkk a dóor rakku booy bi moo njëkk a dóor magu booy bi jili mu daanu raq ji jël benn tunguni bi la jël dóor ko ko si bopp ñun ñu ngi gis lépp si stade bi lañ ne woon lépp fa la ñu fekk xam nañu lépp ni mu demee nag waaw. jërëjëf sëñ na rafetul. ba diggante Papa Sow ak Siteu ak violence bi fa jot a am yëpp noo ko jàngatee. waaw loolu moom naxari na ñëpp xam nga mbër yi moom dañoo war a xoolaat seen bopp. xam nga yow combat boo xamante ni moo waroon a soxali combat yi xam nga ñëw yàqu nii day yomb quoi naxari na askan bi yëpp naxari na ñëpp naxari na supporteur yëpp képp ku dagoon billet dem fa am nga lu la métti ndax parce que combat boobu lañ yaakaaroon ne moom mooy combat bi nga xamante ni moom moo war a doxal combat yi yi si des yi nga xamante ni si ginnaaw moom moo leen war a doxal ñi képp kuy supporter bu bis ba jotee képp ku war a bëree nga dem dagg billet seetaan yi waaye comme que bi nii la demee beneen combat bi fi ñëw kenn du seetaan kenn du dem bu dee billet 1000 francs la sax kenn du dugg ndax parce que lamb ji moo waroon a suqali lamb yi si des. comprendre nga lu toll ni combat Siteu ak ak ak ak Papa Sow dem ba dernière minute affaire yi di yàqu loolu teguñu ko fenn comprendre nga gars yi dañoo war a wut seen matuwaay bu baax a baax baax baax baax seen matuwaay bu baax arène nationale du du arène boo xamante ni dañ ñu ko defaral pour fo. comprendre nga dañ ñu koo defaral pour sport fo ak ree xam nga bégal askan waaye lu toll ni Siteu toll ni Papa Sow ah. yoo nga xamante ni duñ mbër yu ndaw ay mbër yu mag lañ dem ba combat ba ba dernière minute combat bi di yàqu loolu teguñu ko fenn askan wi daan am lu leen naxari. sëñ bi mën nañoo xam uh, diggante ñaari mbër yooyu yow kan moo ci nekkoon si. waaw man si Siteu mooy sa mbër waaye nit ki bu nekkul si dëgg xam nga nekkul si dëgg. mais gars yi nee nañ que ni euh, da ngeen a tapetoon léegi gis ngeen Papa Sow moo taxoon ngeen xaañ ko pour combat bi bañ a am. non non waaye Papa Sow di béyu Casamance Papa Sow dañoo tax a jóg gàttaayam boobu noonu xam nga ne bu arbitre ne pré ah bu koy Siteu muy daanu wala bu koy. mais expérience la woon ak jeunesse de. amul expérience loolu lépp jëru ko ñun combat bi la lépp taxu ñoo jóg combat bi max lan lan moo ñu taxoon a jóg arbitre sifflé ñu duma ko. yebal ko ay ay mbokkam ñu ànd ak moom dem jël suñu victoire dem Siteu moo man fukki Papa Sow ak juróom Papa Sow dafa ragal leera ma ne ñu nekk si suuf ñun ñoo na ko demal jéem a dem feneen ñu xaaj la combat bi yàqu. Eh, sëñ boo amoon kàddu yooyu wax seen euh, CNG de lutte bi ak organisation lamb bi lan lay. waaw ñu jël seen matuwaay rek affaire yi moom ñu jël seen matuwaay bu baax ndax parce que nit ñi duñ yàq seen liggéey dem ba sa stade ba ah dem ba stade ba la la war a bégal gisuñu ko loolu day naxari ñëpp. comprendre nga CNG na si na si na si na si jóg bu baax ñi yor wàllu lamb ji nañ si jóg bu baax euh, gardien yeeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo escorter affaire yi nañ si jóg bu baax ndax parce que lii dafa métti jël sa xaalis dugg fay dugg comprendre nga dem ba sa lamb ji gisoo lu la neex loolu dafa métti trop trop trop si xol ndax parce que xaalis bi faruñu woo de waaw man instant banaa dem lamb xanaa Balla Gaye du bëre bu dul Balla Gaye man dootuma demati benn lamb ndax parce que du fay sama xaalis dem ba foofu toog ah bëgg a dund lu neex quoi di gis lu naxari du ma ko def waaw jërëjëf sëñ bi jërëjëf madame. képp ko doon jooy jooy xool ndax ñàkk kattan dama ne say rangoñ fer na ak Cheikh Omar Dramé indi leen remède naturel sans buur kattan yi bii mooy seen chef waay waay bii mooy daj dëpp gi waay li ci gën a neex ñu indi leen kattan numéro un ak kattan numéro deux wax bi du bari lii daal mooy ñam xam dama ne képp ku ci soxla gaawal woote gaaw ci numéro bii di 76 233 96 11 ak Cheikh Omar Dramé dund ci jàmm ak bànneex